لطفا يا برد أحراري يا أكرم الكرم يا أرحم الراحمين ñaari télévision yi nee na ñaari télévision yi bii da baax la. bii da baax la. bii konu Cheikh bii konu Cheikh El Hadj Omar la. ñaari Cheikh ñaari Cheikh am na. Thierno Bachir. Thierno Bachir. Thierno. Euh, Cheikh El Hadj Abdoul Si da baaxu Malick. daf ma laaj sànq. mu ne ma journaliste bi daf ma laaj ne ma at yii yëpp dañu seetlu boo ñëwee doo sol daal. boo xasee dugg dàll yi. mi ngi gis man mi ngi gis man. ma ne ko maa dégg ci sëñ Abdou mu ne moo ma ko laaj bu ma ko laajutoon du ma ko tontu ca bunti kër ga ma ne ko maa dégg sëñ Abdou mu ne alaaji Cerno Saydu Nuuru nee na su dellu woon nekk ndaw day jël kaal day jël kaalaam takk ci ndiggam def tànki neen topp ci gannaaw Cerno Bachiru lu mu bëgg mu def lu mu tere mu bàyyi Cerno Saydu Nuuru ma ne leen fa Cerno Seydou Nourou yeggoon ci yàlla ak lam xam ci yàlla ak lam am ci yàlla su waxee loolu ci góor gi man nu ma war a def man nu ma war a def tëdd ñaay lu ma def xaw ma sax lu ma war a def ma ne leen góor gi daal li ma yëg man sama yëg-yëg mooy jar na def tànki neen ndakaaru dox ba Louga billaahi ñëw séen ko rek mu xool la nga xool ko nga ne ko maa ngay delluwaat du la sax ñaanal nga xool ko mu xool la rek nga ne ko góor gi maa ngay delluwaat doxaat ba dakaar ak tànki neen yaa bëgg sa bay leen téeméeri at yu nekk dafa am lu yàlla di sepp ci benn nitu yàlla ci aqtaab yi may ko lu mu dut maye téeméeri at yu ne ma ne tey la Alaaji Abdou Aziz amoon katolik protestant animiste jullit murit tiijaan xaadir laayeen ibaadu rahman ñëpp nangul seexul xaaji abdul aziz loolu yàlla wëlbati na ko sotti ko ci jëmmi Cerno Bachiru Muntaga daaha cheikh tey ku yay kuy waxal yàlla te yàlla rek tax ngay wax dëgg rek te amut benn parparloo raxut dara di nga xam ne la yàlla joxoon alaaji abdul aziz ci ñëpp nangul ko unanimité Mm. yàlla jox na ko Thierno Bachir Mountaga Daha tey te loolu yàlla chaque téeméeri at yu ne benn góoru yàlla la koy def cëm loolu nag mu ngi ci jëmmi suñu wayjur wii di sa di sa wayjur di suñu wayjur Thierno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar Sénégal nag ah duñ xam duñ xam waaye dama ne luñ gis ma def matul asaka sax ci li ma waroon a def. wax nga ko ba ay dara waaye dafa am ñaari kaddu rek yu ma ciy sànni dara ñu ngi lay dalal waaye maa ngi koy wax ci Thierno Cheikh bu Thierno Mouhamadoul Basir kontaan na li ko président wax démb doy na Thierno Cheikh mënu ko naam mënu ko maa ngi lay gërëm di nuyu konu Cheikh Omar bi yëpp yi ci Ndakaaru yi ci Fuuta yi ci Sénégal li ngay liggéey ci sa kër maam gi yombul ku ko liggéey sa ji yow ak moom am ngeen résultat boo xam ni kenn amu xam nga lu tax Thierno Mamadou Bassir dafa ne ci roq bii ngeen wane ko ba ñëpp teg ko bi ci nee résultat bi feeñagul sax nee Thierno Mamadou Bassir nee nan defe ndànk-ndànk waaye yow moom sunu neexee ñu ni ñooy mu neex nit naqari nit yéenay Sénégal xam nga lu tax seen xol yi iñaan amu ci Thierno mii damay wax ku ma àndal la waaye yow it ku àndal nég barki démb laal gi ko laal du hasard Serif li nga def xamoo ko fab sa lépp delloo Thierno Seck Thierno fab léppam delloo la defar ngeen lu bëri ci réew defar ngeen diggante Thierno Seex ñi ànd moom juróom fukki at te doon am sikki sàkk defar ngeen leen defar ngeen ñu doon laam-laame defar ngeen sëriñ si kon nag li mu ni moom xam nga moom ci waxam lay tibb wax defaral nga Thierno Basiru nga nopp waaye ci sa baatin laa tibb léegi ndax danga ni ku mu neex ak ku mu naqari li ngeen def yéen ñaar rek am risque def ko moo tax ngeen am ci Thierno Bassirou lu kenn amul. bal bi tàkk na day sax gay nag kilifa yëpp ngi nii. nee Tamsir gay kilifa yëpp a ngi nii Tamsir a ñëw ci yoon ah. nee tàng الله كل الخلق قد وسع من فجير ومطيع زاهد بارئ لو كان بابك لا يأتي ذو كتب فما دعيت غفورا كل أوزاري لو كان بابك لا يأتي ذو إثم فما دعيت غفورا كل أوزاري خاطبت ربي قتال بنا فاغفر لعبد من العذاب حيا مولانا لو كان بابك لا ياتي ذو إثم وما دعيت غفور عن كل أوزارك وفيك kitaabika rabbi bi nee na bi mu yëbalee ñii nee day barkeelu la ñun ñëpp ñi teew ñoom ñii nga xamante ne ay doom lañ moom bàyyi moo xalifa bi ñoo bokk bàyyi loolu moo tax nag loolu moo tax programme bi demee nii lépp nag moom mu yor ko yoral ko xalifa bi yoral ko bagam jërëjëf Kunta nee na Sidi Fall nee na dafay ñëw fii tawat ànd ak ku ñuy wax Muntaxa am lum la tawat yow mu ne demal ca baaba fii ci biir xabru bi ma nee na mu ñaan foofu dem na fu ne mu andi ay jafe-jafe mi ngi fees boobu ba dëgg ni gisu la mu ñaan baaba damaa jóge ca àll ba doon sàmm di bay ñëw fii Louga ma ñaan ci baaba yàlla ma yàlla may kër Louga yàlla may na ko kër mi ngi may ko fi ndox ci barke baaba bi nga ko booleel kon mi ngi nii mi ngi nii mi ngi nii jërëjëf. waa ah, mbokk yi Cheikh Sidi Mokhtar na. dafay bañ nit ñi gis ni toogaay bii moom lay layal de nee na ci suuf la toog de nee na xalifa bi moo ko ñaan ni ko dama lay ñaan nga toog fii ci kaw nee na bañ na ba sonn mu ni ko ndigal laa la jox waaye fii mu toog nee na diis na ci moom lool diis na ci moom lool wallaay nee na diis na ci moom jërëjëf Kouté jërëjëf muntaqa taaha bu cheikh alhaaji omar waaye li wara loolu mooy lii xew ba mu xewee Thierno Bachir ki mu yónni woon mooy taawam cheikh na cheikh omar mouhamadul bachir dañuy wax ni hasard amul ba may Thierno di woo ni dama laa soxla nga Thierno Cheikhou boobu fekk na maag Thierno Cheikhou ànd mm-hmm. Yaquba dama gis mimorem rek xam ni lii lu war a jàmp Thierno Cheikh mu ngi doon wax ma ni ko yaagubu de moo may woo góor gi la ma jox ko téléphone bi na wax ak moom li moo waaye ci ay yitte la nekkoon recevoir ay daayira remercier leen ñaanal leen ci turu baayam ak Cherif Ibrahima teraanga bi mu defal baayam Thierno Cheikh ci loolu la nekkoon loolu moo am loolu lay dox guddi ak bëccëg wax naa ko fi démb foo ko seen bu laajte ci ndigalu baayam la ne demul fen lu dul ci wetu Thierno Bachir waaye bu bi teewee Thierno Cheikh ñëw na teew na Cherif Ibrahima teew na Cheikh Bekkaay wax na li mu wax léegi nag kaddu gi dafay dëllu ci ci ci njabootu Thierno Mouhamadul Bachir Muntaga Daha ndax teraanga teraanga moo koy fay Cherif Ibrahima moom mooy tontu wax ji waaye sa doom sa xarit sa soppe ma madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye yegg si na léegi mu ngi ci sal bi fekke na jotaay bi mu ngi lay nuyu ak délégation bi mu àndal ak ziar di nuyu Thierno Cheikh ni bëgg na la gis lool ba gën a nuyonteeg yow ba gën a saafanteeg yow ndax démb ba léegi mu ngi jëm aleykum wa rahmatullahi taala na wax ji nag ñu ngi ko yëkkati ci ndigalu sunu wayjur bii toog ci Ceer Mouhamadul Bachir Muntaga Daha bu Cheikh El Hadj ci bopp njabootu Cheikh El ci àddina yëpp nee na am ñu fekkee ko ñu ngi koy wax nag ci sunu ndigalu rakk ji sës ci ñun rëkk te duñu rëkk nag li sëñ Mansour borom daara ji daan wax daan ko wax al amin mi nga xam ni nelaw na kon lii may wax yóbbaale naa Thierno Cheikh bu Thierno Mahamadul Bachir sax ci sunu ndigalu way jur di leen sant bu baax li ma ci metti rek kunta lañ sant waaye fii moom ba ba ñuy yëbbi ba ba ñuy génn Haydara la ñuy sant yàlla def na nag wax naa ko àddina bi yëpp nag ñii ñooy kalu surafaawu comme jàll ak ba ak ba ni mel ñoom noonu la mel moo tax lu leen neex rek wax ñu ko ñu nit lu nu neex nu wax leen ko waaye ñu baax lanu da dale ca xalifa ba maam bu mook doomam ji Cheikh Bekay ak Souley Souleymane Seck bu cene ba ak sëñ ma dikke borom yàlla nee na 93 ñoo ñoo doon ànd di jóge Tiwaawan dem di ko deeti Njaasaan kon nag lii ñoom buñ ko defee delloo mbatta ca ndaala rek te li ceer na wax léegi lii suy am taalibe yi daañu wedem mooy fa buhital ladi kafara dootuñu am lu ñu wax ndax buñ gisee seen ay kilifa di toog di waxtaan weddi gis bokk ci lii lii nag yàlla na bare yàlla na sax su ngeen deme ngeen xalifa bi lu mën a xew rek xalifa bi daal bëgg na kontaan na wax na ko it ngeen dégg doomam ji ñun ñëpp bëgg nañ ci seen jotaay bi ndax lii li Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane daan wax al maktum mun li am rafet su amuloon ñaaw lu am rafet rek su amul woon mu ñaaw kon nag lii rafet na lool jekk na lool pay gi yàlla rek ko am na leen yàlla fay xalifa boobu ak xalifa bii ak xulafaaw yi des yi ci Sénégal yëpp yal na yàlla méng may leen wér may leen gudd fan wér gi yaram yaram wér gi yaram a xol wér gi yaram ruux yal leen ko yàlla defal taaliba yëpp yal yal nañu doon benn say di yëkkatindoo di tegandoo déglu seen i kilifa ñuy wax ci jëf ñuy jëf ñuy tere ñuy bàyyi yal na ko yàlla def lii daal ci gudd ci gàtt ñoo tële wax waaye yéene bi xalifa bi am ëpp na lii waaye waxtu bi ak xataay bi ak yéeni coon yi yoon rekk lañu moom lañu ragal waaye bu dul loolu ma wax wax ji mën naa ëpp loolu lii daal may moo tax wax ji ñu jéggalu salaamaaleykum incha allah amin amin amin amin kunta tuflil amin jërëjëf al kunta ah am leen téye leen seen micro